waaw nag waa ngi noonu sëriñ Jili Fall mu sëriñ Modou Aminta moo ko jox suñu Fallou Fall nee nañ nag bi ku ko gis texe ku ko gis texe sëriñ Moustapha Mbar moo ko wax ku gis nag bi texe na ngeen bi nag waa ngi noonu tey ci kumte yu ndogu yi jànn asalaamaaleykum wa rahmatullah wa tawaasa bil xaq laaj bi de ak sirk ñu ngi leen nuyu di leen siyaar waaw vidéo bi ci imaan la lool <laughs> man de démb bi ma koy wax dëgg yàlla li ma gis ci ay nit ñu ñu dugal ko statut ah ci waan la daal Sénégal daal yéeme na daal nit ñi daal damaa xamul kañ lañu yeew moo tax képp ko nga ne nekkoon nga ci tasawuf yàlla génn la ci yóbbu la ci alquran ak na saa boo xëy war nga di gën a feddale sax sant yàlla waaw tasawuf moom mbir yu mel nii la rek ay gis texeeg raay texeeg mi ngi noonu daal fi mu toll ñii nga gis nii suñ xëyoon suba ne eh, ku dëgg ku dugg ca dëkk ba texe day fees day lëkk nit fi mu toll nii lii am na ñoo xam ne lii nin ko gëmee fi mu toll nii mi ngi noonu daal xëyee daal war nañ di wax alhamdulilah alhamdulilah delloo njukkal yàlla suñ borom bu baax a baax a baax a baax yéeme na daal. waa gis taxe gi nag yaatu na lool moom comme gars yi nañ koy waxee. am na ko ñu wax sëñ Murtada eh, doomi sëñ bi la siiw na lool ci waxi gaay ku gis ay noppam da ngay taxe <laughs> gaay lool lan daa wax nag pour naan moo tax daanaka day faral di muur naan dafa yombut a gis daal waaw ku gis ay noppam da ngay taxe am na ku ñuy waxaat eh, sëñ Abdul Ahad kooku moom gaay yi nee na ku man tur wi eh, moom da ngay taxe moom ku man tur wi dëgg-dëgg Abdul Ahad nee nañ ku ko man moom daga pexe waaw bari na ay mbir daal waaw sëñ boobu tamit dégg naa moom dara wax naan mm, mënuma ku kun ma tudde rek ma xottal la mbubu waaye assuré naa ne kun ma tudde moom mm, di dem àjjana waaw mi ngi noonu daal mbir yi daal yéeme na daal te nag da ngay nekk sufiyanke jàng da ngay jàng wax dëgg yàlla da ngay jàng fekk ba sori lool waaye e, mbir yooyu moom suñ la koy wax da nga koy gëm moom moo tax daanaka e, des fois nga gis ku mel ne xafis wala gaa yooyu dugg fi naan jàngoo jàngoo jàngoo fekk ne ñoom moom daanaka suñu wax sax yow mi nga xam ne yaa jàpp ci alquran ak sunna ay ree dalay jàpp waaw ñoom seenum jàng dañuy jàng ba jàpp ne yeneen kayit seeni kayit fekk ne ferun ijji waaw mi ngi noonu daal yàlla nañu suñu gën boroom gën euh, taxaw bu baax a baax a baax. nañu bàyyi xel lenn ci Sénégal kër sëriñ soo dem walla sénégalais buy wax ñetti façon sénégalais dong la sénégalais bii réer a ko jàpp akuk nax guñ ko nax nax gu yàgg la nag. xam nga nax yi fi nekk dafa yàgg lool ci Sénégal ay maam yu baree baree bare dañ koo donnu ci seeni maam ay sët ñëw donn ko ay sëtaat ñëw donn ko ba fii ñuy wax ak yow nax yooyu ba léegi day continuer li fi nekk kon sénégalais bu njëkk bi mooy ki nga xame ne moom xamut dañ koo nax nax bu yàgg sénégalais boobu lu nekk la mën a wax waaye lu nekk la mën a gëm am na sénégalais boo xam ne moom kenn mënu koo nax moom kenn mënu koo nax ci diine waaye kenn mënu koo nax ci àdduna waaye nag saay-saay na saay-saay soo xam ne mu ngi lëkkaloo saay-saay yi nga xamee ne ñoom ñooy saay-saay tey askanoo ci diine ñuy bisnes ñoom maanaam di business diine ji ci diggante sëriñ bi ak taalibe bi am na taalibe yoo xamee ne mbooleem caay-caay bu sëriñ ci di def xam nañ ko mbooleem lu bon lu sëriñ ci di wax xam nañ ko waaye ñoom li leen lëkkaleeg ñooñu mooy bisnes ñooñu mën nañoo wax lu loxo di tegu ci nopp waaye dara lañ ci mais business bi dong nag moo tax ñu koy wax buñ toogee ci sëriñ bi dañ koy dañ koy gonfler dañ koy ëff ëff ëff ëff maar am na beneen sénégalais boo xam ne dañ koo dañ koo yebal dañ koy liggéeyloo moom rapport lay bind chaque jour di ko envoyé état. ñooñu lañu tuddee ay renseignements généraux ñoom ñi ngi fi fees dell ci kër sëriñ si ñi ngi ci mbedd mi di wax waxi dof di gëmloo nit ñi waxi dof waaye ñoom dafa am lu tax ñu jóg mooy dañuy dañuy liggéey <clears throat> léegi nag ñetti sénégalais yii ñoo fi nekk am na beneen sénégalais boo xam ne moom kenn du ko ci boolewaale ndax kooku moom yàlla defal na ko mu yeewu te yàlla defal na ko tawfiiqu muy góorlu ci diineem di ko sellal kémti lay kàttanam ñooñu nag ñu néew a lañu ñu neew lañu de bariwuñ de ñi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala may na leen lumière lumière ci xel lumière ci diine waaye lumière ci ak njub ña nga say woote guddeeg bëccëg te gëm ko lool ña ko tàmbalee nag seeni njaboot <clears throat> rogalaan mu jëm ci seeni mbokk rogalaan mu jëm ci seeni dëkkandoo ñooñu gëm nañ lépp lu leen yàlla gëmlu akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam lu leen yàlla wax nañ ko weddi akub yonentam dañ koy weddi ba mu set bil xikmati wal mawizati al xasana ñu ngay góorgóorlu ci seeni farata di góorgóorlu ci seeni naafila di def lu baax di ko wax di ñaanal jullit ñi sirran wa alanan raxas seeni xol bam set wecci ci ak kañaan ci ak soxor si rambaaj ak yàq deru doomi aadama ñooñu ñu néew a néew lañu ci réewum Sénégal waaye nag am nañ fi moo tax genre vidéo yii ak genre wax yi ku xam réew mi dëmbam xam ko bërki démb xam ko tey jii daanaka du la yéem waaye nag di nga yërëm askan wi koy dégg te amuñu ak ràññee amuñu ak xàmme yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla may jàmmi diine yàlla na nu yàlla may ñu fer ijji ci diine jii te kuy setantal lislaam di ko xool ci alquranul karim ak bëtu sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay xam ne <clears throat> lenn rek a fi des te mën a sauver nit mooy diine ju set wecc ju raxul dara suñu yonant wala bokk suñu borom subhanahu wa taala day tagg ñi nga xamee ne dañoo gëm yàlla te gëm nga jaxasewuñ ko woog dara maanaam raxuñu ko ñooñu ñoo am ñaar ñoo am sécurité ci seenu dund ñoo am sécurité ci seen pas-pas ñoo am sécurité ci seen diine jiñ ñoo am sécurité ëllëg yowmal qiyaamati fa nga xamee ne fa la sikkim di lakkandoo te ñoom dong ñoo jub alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduun ñoom dong nga jub yàlla nu yàlla boole ci ñooñu boole si mboolem jullit bu bëgg lu baax salaamaaleykum